ku ne jàpp ne le président Macky Sall il est en partie responsable euh, ndax euh, voilà sa relation ak ses adversaires politiques ñu bëri jàpp nañ ne taxu ko demee noonu. non président Macky relation ak ay adversaires defe naa ay relation yu saine la parce que moom. yaakaar naa ni il a toujours tendu la main à ses opposants mm -hmm. mais dafa tombé ak euh, benn génération d'opposants boo xam ne ñoom dañu jàpp ne politique euh, siisu la c'est-à-dire politique du loolu politique c'est l'art de dialoguer ah nit da ngay opposé wu mais l'opposition doit être dafa war a nekk opposition de contribution mm-hmm. parce que le temps que bi ngay opposé wu le président de la République est élu si pour juróomi at ca juróomi at yi moo fiy nekk mhm. donc yaakaar naa ne boo naan su ma toogee def fii boo amee xalaat bu baax li gën a jaadu mooy boo amee xalaat bu baax nga partagé ko ak moom mhm. ngeen évoluer te terewul ku nekk euh, am nga yéene ne man kat xëy na bu ma fa toogoon dinaa gën a def lu gën a baax mhm. bu ba su jongante jotee sénégalais yi tànn waaye doo ne rek opposition damay toog lu pouvoir def baaxul du wax ak moom du ko def parce que da ngay xool opposition bi ñu am respect institutionnel bi doo dégg sax ñu wax le président Macky Sall bi élection passée dañoo taxaw ne Euh, reconnaître ñu ko loolu wax dëgg yàlla c'est pas respecter la majorité de sénégalais yi nga xam ne ñoo élire le président